yàgg naa la yàgg naa la wax ni yow un jour man gëm naa ni dinañ bokk benn table liggéey liggéey réew mi. non te gëm naa ni aussi tamit Sonko wax dëgg yàlla Ousmane. gëm naa ni lu mun na am nañ jub jubte si moom loo xamante ni soxlawul alalu askan wi. te loolu rek moom moo ñu manqué am benn genre intégrité boo xamante ni ah, mhm. nasaraan bu ñëw. bëgg a liggéey Sénégal il faut ñu gis day doon win-win daal win-win. ku ku mm-hmm. ku mm-hmm. ak ci loo xam ni neexul yàlla. Mm-hmm. yàlla da la koy wan. gis nga ndaw si ñu defe ni que dafa teg mënul mënul yëkkati man la njëkk a jàppanteel. saa bi ndey sax def naa ko ba yàgg si la neuf mois mënul dara ci suñu yëngu bopp mais jigéen nag. bu am sa bu bon di wër di fet. naan maa téye lii maa téye lii mën naa lii mënoo leen. nañ tere tere mu tëb bàyyil mu. yow mooy jabaru ministre bi léegi fi mu nekk nii. mu tëb fi mu nekk nii fi mu nekk nii. li muy wax lépp am dara am ci man li muy wax lépp xam naa ko. Hmm. dara la ci mënul. ministre de l'intérieur ministre de l'intérieur bu moom ah. moom dafa dafa moom moom. moom moom alxan kooku buñ ci sax wax loolu. loolu eh, hmm. loolu. man xam nga sama position. <laughs> je sais je sais je sais mais vraiment parce que a causé beaucoup. li may bañ li may xam nga am na xeex yoo xam ne boo ko xeexee dañuy def ne da nga place am. yes mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. waaw. il faut pas d'accord ñu bañ a wax. Ah. non non d'accord wala wala déedéet yow boo Mhm. mais en tout bu fekkee ne bëgg ngeen mu am. waaw. <laughs> buñ ko wax. non non non non loolu moom def na lii yi de gars yi fi mu nekk yi waxatuñu sax bu waxi ministre de l'intérieur ñoom Macky dégage. <laughs> ñoom ñoom la ñuy demandé mu mu dem mu koy wax. Hmm? man nee naa la Macky Sall ay nitam déglootuñ ko. billaahi wallaahi taalaahi tànk bi may wax laa nekkoon ay nitam déglootuñ ko. xam nga hmm. xam nga booy yi am na ci ñenn ñoo xam ne nee nañ kër kër Mm-hmm. kenn du taal këram mais ñoom nee nañ. Mm-hmm. gendarme yi duñ ñëw wër seen kër duñ toog seen njaboot ci ci ak njàqare balaa ñu ko leen koy def ñu def leen ko te loolu ñu ko diffuser parce que amagul. Mm-hmm. xam nga xam nga man xam naa li ñu mën a wax ak li ñu mënta wax man xam naa kër yi ñu taal xam naa ne la leen taal. puudar benn cocktail molotov romb jub sànni waa kër ga pañ à quatre vingt quinze pour cent. waaw. di li a am. mooy le gars va comprendre ni que dafa am ñu koy nax. Macky Macky Sall la